di ñaan la classe politique bi liñ daan def ci lu baax ñu dolli ko la classe politique nag rawatina ki nga xamee ne mooy président Mouhamed Mohamed Mohamed Rahma moom day wax ji waxuma ko du ordre pour man du impératif pour man waaye dama ko caa fekkoon dama ko caa fekkoon bu koor jotee bu tabaski jotee bu liman jotee danaa dégg ci rajo bi ma ne ah léegi dañ maa invité wul wala ma déggee ko ci rajo bi moo ko yëgoon day damay dem rek ndax jëf ju rafet gi ñun loolu ñun loolu mooy mooy suñ mission. kon moom numéro un ci kuy dimbali population bi ci ci ci Kaolack man moom laa fi gis ci ci la côté euh, euh, côté politique bi te wax naa président Macky Sall mu toog ma ne ko

mooy ñëpp la nañ ànd jàppalante jàppalante ak population yi ndax lawoon daaw du ren jàppalante dimbalante du ma wax te yàlla tax loolu loolu lu xew la kuy def tey bu yàlla taxul kan moo tax defar nanga te yàlla tax loolu duma ko wax nañ leen dimbale wala gën leen dimbale ci tabaski gi ci moment bi lii may wax nag classe politique bi ñoo ko moom waaye duma ko wax sëriñ si duma oo mukk suñ jarbaat bu baax bële ca Medina Baye Niass di sunu jarbaat di sëriñ Cheikh Tidiane Ali Cissé nga xam ne eh, bu heure bi jotee ko amut xar yaa ngi naan xaaral te nangam tabaski gi dafay jublu si na gis eh, Kaolack sonnoon lool waaye waaye suma xel dana euh, dana dal ndax koor gi gis naa la classe politique rawatina Mouhamed Ndiaye Rahma ni mu dugalee loxoom ci kaw la ko waas yëpp sans nangam ni nangam te amul institution euh, eh, loolu lañ koy xam amul gérewul dara te ñenn ñi ku ci dowut Mouhamed Ndiaye Rahma def naan joxuñ ma loo xam ne mën naa koo joxe waaye moom laa gis joxuñ ko dara dara laa wax waaye yëgalu ko yaramam nee na lépp lu président ànd ànd na ci ku président samp samp samp samp na neex àndal na la ci moom xanaa li muy nitu daara moo tax am na yoo xam ne nag nitu kese kese kese mënu koo am kon ci tënk lool